fasiyene rek insha allah mu nek déclenchement wu activité wu hadara malikiyya ci li gëna yaatu pour fas yéene jëlaat Pastef waaye wat xel li ba légui li taxone tejj bi am amna lu fi def ba légui mu di feebaru covid ku ne xamna ni ba légui ñu ngi santane wat di gëna taxo wat ak li nga xamanteni mom lañu tuddé ay mesures barrières mesure barrière yooyu ñu bàyyiwaale xel woo njiitu daayira yi njiitu fédération yi njiitu coordination yi mbooleem mbooloo bu aju ci xadara bi moo xam bu mu mën doon fépp ñëw ci Tiwaawan nga takkoo ormal tegtal yi nga xamante ni moom la personnel sanitaire bi joxe ci masque yi jëm ci gel yi jëm ci wàccaay ak ñàkk dal yi am yenn saay fu mbooloo di daje ñu jëm te xam ni fi nu jëm ak li nuy def li mu laaj mooy dal dal li mu laajit mooy teey li mu laajit mooy yiwe li mu laajit mooy sellte li mu laajit mooy melokaan wu rafet ci colka ci taxawaay ci def-def ci jëf li mu laaj ndax ñi ñuy fekk si te am lu nu bëgg am na loo xamante ni boo ko bëggee di fekki ku ko yor danga koy jaare ca yoon wala koy jox te yoon wa gën a jekk ci jox nu ko mooy sunu teggin ci ñoom ñu feeñal ko ci orma ya feeñal ko ci dalga feeñal ko ci yiwte ga ak mbaax ga ak ñeewante ga kenn ku ne àndandoo dofal si Tiwaawan fukki fan ak ñett ci weeru mars mm-hmm. ci la ko jàpp muy dimanche 13 mars bu yàlla mayee tew tawfiix waxuma taalibe cheikh yi de ndax man duma jotal benn lay ci taalibe cheikh war téef ci nun nu war koo def ñeneen ñi nag bu ñu amee lay mën naa leen ko nangul waaye kuy taalibe kuy soppe kuy wëllëre kuy njaboot bis boobu war na nga bàyyi loo doon def ñëw def ko sunu bisu engagement bu ñuy yeesal ci li nga xamante ni moo tegu ci loxom te mag ñi teg ko ci loxoom mu nekk sunu bisi recueillement jëm ci sunu kilifa yi nga xamante ni li nu yaakaar ca yàlla ñoom lañ ko yaakaare te yaakaar naa ni njabootu alaaji Malik ku leen yaakaare yàlla yàlla du tas sa yaakaar